tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub daw na ci ndaanaan bi laa jàkkaar lool nag kii gën a neex Sénégal <laughs> da wax nag man ñàkk sama wuju yaay da ngay wax <laughs> dana wax man maa ngi soxla Ndiaye di wax Cheikh Cheikh Mbacke waxal Cheikh kaay Cheikh da wax Cheikh moo daal di ko wax ah ñoo bokk kër Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ak was bi Cheikh Cheikh gis nga ne Gambie. was laay naan. was ngay naan. non Gambie dafa fekk may enregistré boo xam dafa war a génn incha allah décembre. ma ma ma mu dem. gis nga li mu bu demee rek dem naa. gis nga li mu def. waaw du moom kenn moom. waal kenn du moom kii di ma filmé xam na ne waal kenn du moom mhm. yow mii di wax xam nga ne kenn du waali ñii toog di déglu xam na ne kenn du waali kon bàyyi la ma naan was waa taxawal ñu dem <laughs> mais gis nga coow li nga xam ne xew na Gàmbi ndax yéen ñi fi nekk éco bi fekk na leen fii ñu gis jàpp ñëw na ñu gis démb tamit njole kàddu yi nga xam ne démb ci ne ko daal di wax ni ramdaan a neex ku ne dina ñëw non ramdaan sax neex na mhm. waaye kii way moo baax kër mhm. mën na yaatu néeg ya bari waaye pour nit dëkk fa day nekk problème waaw nit bu siisee kër mën na yaa toll ni stade bi néeg ya bari loolu kër ga mais kenn du fa ñëw wala xol bee baax dama ko yàgg a wax waxaat ko waxaat ko waxaat ko waxaat ko te wax waxaat du bari wax barke Serigne Saliou Mbacké wax xol bi la wala xol la gën leen ñëpp xol li wala boot Ramadane ñaata nit la xoole ñi nga xamante ne ay doomam la ñaata nit lañ xoole ñi nga xamante dañ ko yaakaar ñaata nit lañ dos yaakaaru kenn du feddi ko lëre kon waali keneen la la nee naa la am na sax ay waykat yoo xam dinañ ñëw. ay waykat yu ñëw. waaw ginnaaw tëggkat yi fee ci kat. non non am na ñoo xam sax dinañ ñëw Sénégal liñ bëgg. Mhm. ci wàll la nekk. mais yéen ñi nga xam ne da ngeen di waxal waali parce que yéen kenn du laal waali am na ñoo xam ne tamit kenn du laal seen artiste. ñu gis ñi nga xam ne ñooy ànd ak Sidi Diop ñu daal di génn daal di wax ni waali ci barke Sidi lay dund ndax lépp loo xam ni Sidi liggéey na ko ba pare rek waali da koy nangu jël. joueurs yi nekk nawetaan sax dañuy bëgg a nekk professionnel. Hmm. joueurs yi di fubal nawetaan professionnel la ñu bëgg a nekk bëgg nañ mel ni ay Pape Alioune jaay wala Idrissa Gana Gueye wala Sadio maane képp kuy liggéey dara te ñaanoo ci avancement avancement wu nit mooy nga jóge ci feneen ñëw ci waale waale avancement la dama laa ma sax daan la waale ci réew mii la dëkk fii la tekkee fii la déggee daal yi waale lu mu am rek liggéey moo ko may du ay wax waale waxul dara barke Seyduna Muhammad rasulullahi te dañuy tàqale mosuma koo dégg mu wax tur artiste lu ñaaw xool ma dama ne waale mosuma koo dégg man Cheikh Mbacké mu wax ci tudd waykat wax lu ñaaw barki mu Mustafa waale fu mu toogee mi ngi xool lu nit ñi bëggee waale fu mu xoolee mi ngi xoolee ak njabootam luñ nekk ci jàmm waale lu mu xoolee mi ngi xool soxnaam nekk ak lu Sénégal gépp nekk jàmm ak loo xam bu ko fan ay kontaan damaa yërëm ko bañ waale fi gaa yi nekk waale néewul foofu eh fi gaa yi nekk xuloo xeex néew fa mais jamono bii nag gis ngeen yow artiste nga ci nga nekk tey bu ñu xoolee weex na barke <laughs> barke borom Tuubaa kay daa fàtte diw waa baax na mbuur am na lu ne ah. gis nañ yow artiste nga artiste <laughs> nga gis nga seen bi njàpp daf ko nangoo daf ko nar a séq ak Amady papaam nee moom mooy papaam Armand Ndiaye ñëpp scène bi ku mën a ñëw ñëw ñëwal mais du xat non borom scène bi xolam yaatu na muy waale xoolal njàpp feeñ la rek mais balaa deux mois laa la jox dale deux mois jàppal li ma la gisaat ñeneen lii xoolal lii lii fi yàlla la waaw lu leer yëfi yàlla la waale yëfi yàlla la xoolal nit ñi xoolal buur kenn desul tey kenn nelawul yëfi yàlla la yëfi yàlla bokkut ak yëfi xërëm waale li mu mel yëfi yàlla la te nit ku defar xol la ku laabir la ku am jom la ku nangoo liggéey barki Seydunaa Muhammad man dootuma tontu kenn damaa yor li ñëpp bëgg mais yéen tamit vraiment reeni coow am na seen biir nag parce que boo xoolee fan yële passé ki nga xam ne moo di Youssou Dieng na daal di wax ni ñi nga xam ne dañuy wax ñëpp waali waxloowu leen ñu dégg ëmb eh, la mhm. man moom lu waaye waxati waxati xam nga ne Cheikh Mbacke doomu waal la non man du ma Youssou suñu père la mais man lu waaye waxati waxati xam nga ne Cheikh Mbacke gu waale même épaule la <laughs> sama papa moom sama lépp la man moom xam xanaa lu waay wax Cheikh Mbacke nga bëgg nga bañ xam nga ne moo ko waale benn xol la wax dëgg yàlla loolu moom amul lu ma ci nekk di wax Youssou suñu père la Cheikh mbaa xam nga ni man bëgguma kenn man yow laa bëgg moo ba génn sax ba soluwaat ci may nana sa was nga dem <laughs> seex saloogul seex dina ma rey barki Cheikh <laughs> yéen a ña xara cece <laughs> alors gis ngeen Cheikh Mbacké moom itam nekk ci Wali di nekk e zimu afia borom boutique bu mag bi ci réew mi <laughs> ñi nga xam ne Wally Ballago Seck daa yëkkati millions yu bëri barki ne bu seen inauguration bi nekk moo fa mais damaa jooy ndax invité woo leen moom loolu la demee mere naa leen torop non bul non bul mer hmm. c'est la famille ndax bitig bi bitigu faramaaren la ah. hmm. waaw tey ñu bëri di wax mais comprendre duñu nan la demee waale moom moo leen moo defar boutique bi jox leen wala jox leen xaalis ne leen dem leen ngeen bitig bi xott lañ ko jëlee luñ fa yóbbu avance bi sax waale la xam nga xott ku xool bitig bi xam ne def nañ si xaalis lépp waale la waaw tey nga gis nag coow li bëri demoo demoon nga Gàmbi demoo woon Gàmbi ndax mënuñu dem Gàmbi ndax ñoo géré Mbour géré Thiès géré 31 décembre waaw liggéey bi na dégg naa écho nga gis coow li nga xam ne xew na fa njàpp daal di ñëw li bëri nag fii Sénégal ak foofu yëpp ku nekk di wax ñëwu njàpp biir Faramareen waaw man ñëwu njàpp man intéressé wu ma hmm. du ma am lu ma si wax lenn laay wax mooy Wally Seck na bàyyi xale yu muy jël di leen tàmmal xaalis ñun tàngal nañ xam bu juróom ak tàngal bu dërëm Wally léegi ay million la ñuy jox man looloo ma jaaxal man man loolu laa am li may wax ko boobu. Wally daal daa tàmmal xale yi xaalis ay millions lañu tàmmal. ndeysaan tàmmal na xaalis. waaw parce que genre ku si mel ni nga jox ko ay millions ne ko demal fooy ji. dañuy yàq rek millions. waaw fekk njàpp jox ko ay millions ne ko demal fooy ji. dañuy yàq rek. idaal yi nañuy yàq. mais yéen yàq. waaw mais coow li bëri na nag coow li bari na. Ah. mais coow li mënul ñàkk bañ a bëri lu tax coow li mënul ñàkk bañ bari bëri faw mu bëri nag. Mhm. waaw ndax ñaan bu nangu sonal borom. Mhm. papa coon ñaanam nga nangu na yàlla na ko yàlla yërëm taxaree ko àjjana. Mhm. mama jaaga tamit ñaan gi nangu na. moo tax coow li bari waaw. waaw nice waaw. waaw lan. man euh, euh, maanaam pour lan noonu. wala daal man. Euh, non bien sûr. non yow yaa ngi Jumo Afia yow boo ñëwee dam daal li ci showbiz bi Click Dakar désormais Jumo Afia laa ciy àndal waaw loolu signé nañ ko fii jeex na maa man maa ëpp doole ki ma àndal moo man moo ëpp muy kan muy Waly Balago Seck jeex na di peuple te ngeen sañse wéy la maal ngeen sañse wéy la maal ci seen sañse Adama ñoom ñaar kan la Ousmane Seck na mi ko ñun la moo ma day dégg naa am na ñaari jumeaux yoo xam ni seen gel bi xàmmeewu leen ku mu fa fekk rek kooku lay nekk yee solool dalu leen waaw dëgg neexul loolu mënul bañ a ñaax xam nga xam nga ñun dañoo ñëw jaaxal ñëpp ñëw jommal ñëpp te kii la kii si kaw la waaw moo ñu jox luy jommalaat ndeysaan waaw kon daal cinq gel yi kan la wax leen ma ñun la ñun la ñun la kon naa jàpp ni ñoom la <laughs> waaw ñun la <laughs> sañ segeen wala mal alors gis ngeen gis ngeen tey li nga xam ne dafay xew Diop Faramareen Diop teg na Gambie moom tamit Diop di ko sant bu baax ndax man moo ma yóbbu Gambie. dëgg la dëgg la nekk. waaw sant yàlla bu baax non mais lu taxul Diop. wala da ngay garder Diop. mais li ngay def nii mooy la. baal na baal na. ayca sama doomu ndey jeex eh, ma jël benn côté bi ma kii ma ne ma ñëw ànd Gambie. Ah, yéen a. non maa ngi jël Diop ci la. waaw siyaar nga waaru nga demoon nga Gambie gis nga accueil bi nga xam ne waa Gambie accueillir nañ ko Wally Ballago Seck nan ngeen ko dundee yéen Faramareen. non kontaan ak mbégte li ma lay wax rek Gambia ak Sénégal benn la sa dañoo jóge suñu réew dem suñu réew boo xoolee Wally ni ko Gambie def dafa mel ni fa la juddoo sa li may wax rek nit luñ ko defar rek moo ko liggéey cër bu mu jox waa Gambia respect bu mu leen jox bëgg gum leen bëgg fonk gum leen fonk moo waral teraanga bu mu am rek. militoo na ko quoi ñu ñi ngi bëggee Gambie yëpp di am kontaan ak mbégte xam nga di ñaanal mariage bi jàmm ak wér ak gudd fan ak xiwal kontaan nañ ci moom li may wax chaque jour rek maar ku koy ŋaañi da nga koo xamut wala jege woo ko dafa mën nitam bëgg nitam fonk nitam jàpp nitam ñun dañoo dem mu teg ñu ci bonne condition hôtel yu bakkane la ñu jox ñu nekk si jàmm suñu lekk suñu lépp manqué ñu dara moo tax ñun ñun jusqu'à bout ñun ak moom dee moo ñu mën a tàqale ñun moom rek lañ bëgg moom rek la ñuy topp kon ñu ngi koy ñaanal jàmm di wax waa Gambia kontaan nañ ci ñoom taxawaay bi rafet na nit ñu teeroo rafet na niñ mel ci mariage yi nu ko raw la maar mel ci ñoom mais ñun faramaare nu ko mel lañ mel ci Gambien yi Gambia ak Sénégal réew président la président Wally dañ koy ñaanal gudd fan ak wér rek xam nga di am kontaan bu baax ci côté boobu. mais coow li fekk na la Gambie coow li tam daal ñuy jiite fii Sénégal. parce que ah. gis nga arrivé njàpp biir Ramadan ñëpp day jaay moo njëkk a ñëw. Hmm. coow li bëri loolu ci wàll yi. xam nga dañ na président. président jeexal na wax ku bootum réew. am réew di la wuy si quoi. maar lu ne xaj na ci moom. ndax lii la rawe gaay lii. xol ak mental bu tranquille la rawe gaay gis nga gisam xel dalu. doo xalaat lu rafet sa maar dafa xelam dafa dal ba pare mu gën leen lii xool affaire bi du wax quoi ñun ñëpp ay doomu senegal lañ coow li coow li li wax lépp rek ki mën a dékku rek ay dékku ku mënul dékku yaa yuuxu maar yuuxoogul de sa wax ji bari na boobu ba léegi gaa ngi wax gaa ngi yuuxu gaa ngi dugg fu ne maar na tekk rek maar gaa yi dañ naan géej mais dex la xam nga dex ndox mi dafa tekkaaral mais ku dugg jaaxle noonu la demee nag gars yi nañ bàyyi wax ji rek sa liggéey liggéey rek a wóor ndax gis nga li may wax chaque jour rek képp ku mën di doon liggéeyal di tubaab bi naan ki trawaay ki pay ki ne trawaay travail ki ne pay liggéey moo la mën a yóbbu fu ne sa maar wax na ko na gars yi am dégg-dégg liggéey moo la may lu ne ku jàpp ne moog yow bu la bàyyee du dox ndax na boppam kon maar yéena leen ci côté bu ne mooy maanaam moom kuy liggéey la gëm sa nee na xale bu sawar dëgg may topp kon gars yi nag nañ ci bàyyi xel lii rek exemple la maar mi ngi ci yoonam de nañ ko ñaanal jàmm ñun gudd fan lañ koy ñaanal ak wér di bëggee faramaar yi yëpp ñi déranger jóge Sénégal topp maar dem Mbuur dem fu nekk di ko topp ba Gambia bii ñu jógee ñu ngi bëggee faramaar yi yëpp di wax ne ñun président Wally rek la ñuy topp ñun suñu président rek la ñuy topp ku gàddum réew am réew topp la jàmm ci moom. wax na lépp ku gàddum réew am réew topp la waaye defe camiñal jaara busuk wala mañ se bi jaara